tornato Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu di nuyu ku nekk euh, sa tur ak sa sant yaakaar naa ku gis fii ñu nekk tey xam ne ñu ngi Grand Yoff sees ki nga xamante ne si moom mooy Zarko mbët nag gisaguñ ko waaye ñu ngi toogagum ak yaayam dañ koy bàyyi rek mu nuyoo nuyoo mbokk internet yi wax ñu kan mooy doomam yaay booy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax maa ngi lay fay. maa ngi ci jàmm bu baax waaw maa ngi ci jàmm waa man maay yaay Zarko man maa ko jur mais fi mu nekk nii sama kër yaay la sama kër suñu kër la daal mais moom fii la nekk daal waaw fi kër famille la waaw fii la nekk waaw xanaa lu baax rek lu baax rek Zarko baax na yaru na am na cër ci nit respecté na ñëpp daal yebul kenn daal vraiment yebul kenn ñu gis ni tamit euh, toogoon na lu yàgg waaw nga xam te ne moom mooy làmb bi demoon mm-hmm. ñu tukkee ñëwaat waaw boo gisee loolu bu demoon tukki man maa bëggoon sa yaay bu rek bu yàggee da koy fekk si. Mm-hmm. fekk si ma ne ma comme noonu la demee xaaral ma dem tukki ma ne ko man daal vraiment làmb dafa metti te stress bi ciy nekk doomi jàmbur ci gaañu xale yi nii dugg na fi génn fii lu ne da am daal ma sañoon nga bàyyi làmb ki la demoon tukki nag mu demee tukki nag promoteur itam bàyyiwuñ ko ñoom ñoo ko indiwaat ñoo ko indiwaat keroog bi mu am na bëre bi mu mujjee bëre ban la bi mu mujjee bi mu njëkk a bëre bi mu tukki jee ba ñëw ba kan ak kan moo kan la moo mbay voilà moo mbay guy gi foofu lañ ko joxee avance mu woo ma téléphone yaay ma ne naa mu ne ma jox nañ ma ma ne ko yaa jox avance mu ne ma waaw damay ñëw maa ngi ci yoon bi comme ça nga loolu mënoo ci dara mu nekk li nga bëgg sa xol bi rek loolu ngay def te effectivement xool na xam ne kii lii la bëgg ma bàyyi ko ma ne ko ah comme loolu nga bëgg ñëwal mu ñëw bëri ko yàlla may ko ndam tamit mu jëlaat keneen ki bëri ko yàlla may ko ndam bi tam la même chose xam nga. xolam daal la ko yàlla di fay ndax moom xale mbër yi fi ñu ko teg moom yëggul foofu Zarko judduwul mooy sama taaw xale bu tuuti la boo gisee Gabriel danga naan mag la su mag dee am ci làmb ji moom Modou Lo dañoo neexoo dañoo tolloo moom Modou loo ñu doon ànd guddi bëccëg lu muut Lo mën sarko mën na ko parce que écrim la nekkoon Modou Lo di ñëw Grand Yoff muy dem parcelle waaw mujj gi waa Grand Yoff récupéré ko ne ko toog sa dëkk loolu tax mu ñëw toog fi Grand mais Zarko judduwul mag biñ ko teg yeggu fa ñi ñëpp ay moromam lañu ñii toog buñ ko magee ñaari weer ñetti weer lañ koy magee xale bu tuuti la ñu jox ko nag mag goo xam ne man dama cee fierté kontaan ci walla dafa neex dafa teel a nekk responsable ñu nangu ko loolu nag luñ ko wax ci làmb ji rek man supporté naa ko accepté naa ko ndax mbër yëpp waaw voilà waaw ma bàyyi ko luñ ko wax rek damay nangu man mii lu ne lañ may wax mais lijjanti ma yooyu bari na bari na bari na kee ñii dañ saaga sax def nañ ma ko ma ne ko nag yow bul saaga kenn li la fa yóbbu defal loolu mais bul dépassé benn kilifa ndax xale day am cër ci mag yaa ngi dégg Ada Fass li mu wax dafa rëy dafa bari dafa rëy dafa bari nawloo ma laag respecté wu ma laag yow yaay kan li nga xam lu nekk daal wax na ko xam nga sooy bëri làmb moo leen boole làmb leen rek Zarko àddina du neex ba mu saaga kilifaam kon nag man waruma ci saaga didu maag moom leen yàlla nag mooy àtte làmb ji yàlla moo ci taxaw. gis ne Arafas daf leen a dépassé daal. dafa bari waaw dañ ñoo dépassé lu ne def nañ ñu ko. gis nga bi mu demee première seen compte kii boobu ñuy def ñu këf mbaxaneem bi man dama ñëw song ko man maa ko gën a nekk gaynde dama ko fekk néegam ne ko sa baat moo ko fi dégg te lii bu mu amati ñun doxuñu ci ay wax doxuñu ci ay histoire lu may def moom ci discipline laa koy defanteeg moom man ak moom ak yàlla fekk ko ci néegam bu fëgg tëddoon léegi ne la bu ma ko fëggee mu ibbi buntam ndax xam na ma yaa ngi dégg mais am na yoo xam ne jaru ko nit da ngay gëm yàlla mais làmb liñ ci def dafa bari. dafa bari vraiment dafa bari. ñu gis ni euh, tukkeem bi mu tukki woon bi mu ñëwee dañoo gis beneen Zarko boo xamante ne sii nii bokkut ak Zarko bi ñu gisoon bu njëkk avant xam xam danaan ñëw saax saaxee làmbam buñ ko daanee buñ ko daan yëpp daal waroon na dépassé fii daal. mais gis nañu tukkeem bi dafay changé lu baree bari. waaw dafa changé lu bari ci moom parce que dafa ñëw bëgg dara soo bëggee dara il faut nga changé soo bëggee dara il faut nga changé déglu say déglu li lay wax. moom problème lépp mooy teeyul loolu rek mooy defoo bëre mën na ko xam nañ ni mën na bëri xam nañ ni luñ ko ci woo dina ko wuyu mais teey rek mooy ba ñàkk teey mooy problème te ñooñu ñëpp lépp xam nañ loolu ci moom ndax ñun loolu rek lañ koy yabee kenn du ko ne soo demee defal ni soo demee defal ni dañ ko naan soo demee nanga nga dal luñ la mën a wax na nga dal buñ la saagaa na nga dal luñ la wax nanga nga dal loo bëgg danga koy am noonu lañ koy conseillé du leneen loolu lañ koy wax. daal dal gi daal yéen ci loolu ngeen di loolu la ñuy na dal rek. su dalee moo waral combat yu bari yu mu perte mu perte ko voilà loolu la loolu kese moo ko doon pertal kombam mais du leneen. loolu kese la. mais Zarko ban nit la ban ban nit la ak li nga xamante ne si ñoom ñooy ay dëkkandoom naka lay dundeek waa koñ bi. naa jàmm ak salaam rek lay dundee ñoom boo xale fi mu ne nii bu wàccul li nga xam ne ñëw na fii day fees dell xale yi fi la ñuy yendu fi la ñuy foy fi la ñuy ree ñoom ñëpp ñu ngi nii taxaw jàmm rek la seq ak waa koñ bi vraiment amagul dara nag lu ma am nag jox na ko nit ñi munu mën a leen lii Zarko moo ko moomagul lu nekk ci loxoom nit moo ko ci nit moo ko ci bàyyi man mi su ma soxla woon un million tey ji moo ko fekkee ci loxoom lépp la may jox soxlawu ci ñaar dërëm ma def ci lu ma neex du ma contrôler ma seet yaa ngi dégg lu ma contrôler du ma ne yaay loo ci def ak loo def déedéet damay def lu ma neex waaw loolu daal moom xam naa ko ci moom waa koñ bi daal jàmm lañu seq at salaam at foo at ree at buy bëri ñëpp sonn jàppale ko ci nag waaw. mu mel ni euh, gis nañu changement comme ni ma la ko waxee sànq changement boo xamante ni si bu bari ci Zarko. Mm-hmm. parce que gis nañu bi mu jógee France ak léegi ñetti combat yi mu am yëpp da koo bëri ci teey ba tax. mu gagné li nga xamante ne si moom mooy mu mel ni dañu gisaat beneen Zarko boo xamante ne si dafa teg bëtam tey jii susu ci ay Balla Gaye <laughs> ah, ay ay ay ñi ma ko mën a tuddee ay Gris Bordeaux wala ñeneen ay Ama Baldé ay ay ay Eumeu mu mel ni Zarko bi ñu gis foofu la teg bëtam dafa bëgg a egg fu sori waaw foofu daal la teg bëtam moom foofu ni ma ko gisee man foofu la teg bëtam loolu moom xam naa rag loolu dafa nekk koo xam ne daal ragalu daal xam nga gaynde ku ko ñemee rek ragaloo te moom fit boobu lay doxee ragalul daal vraiment te ñu suñu kër ragal amu fi grand yi moom kenn ragalul ñëpp a ñeme. ñu bari dañuy wax ni que xëy na ñi ko xamul nga xam te ne xamuñu sama genre wala keneen ak keneen ñu bari dañuy Zarko moom kii sax lañ ko tegoon euh, chrétien lañ ko tegoon. ci yenn tax grand yoo xam boo nee grand dafa bari ay njaago. ay njaago ñu bari euh, chrétien lañ tegoon Zarko moom chrétien la wala. jullit la. àjjuma jàll la tudd. comme si ki ki mu doon bëreel aada faas am nga doomam bu góor lu mu wax ne maam bul wax dara sam day daan aada faas doomam seex aada la tudd ma ne ko aada loo xam ci bëri bi mu ne ma sam day daan aada maam waaw moom xale bi loolu la wax ndax xale bi fit bi ci moom mi mi ngi ci moom. <laughs> kooku bu gis lu maara day taali moo ne dama ko internat nekku fi sax papaam day wax ma defanteeg moom ma ne ko du fi ndax dafa am fit fit bi ci papaam mi ngi ci moom man xam naa lii la wax moom. ñu ni tamit euh, njaago Grand Yoff yëpp dañuy ñëw jàppale waat si mooy Zarko nee nañ affaire yi sax gaa yee ko la njaago yi lépp ñëw nañu yi ñu ngi ci tukulóor yi séeréer yi pulafuute yi ñëpp daal Grand Yoff daal ñëpp. Grand Yoff parcelle li mu tuddati fa Siteu dëkk jàmm gën Siteu moom dañ koy bàyyi yàlla di ko ñaanal combat bi da cee jàpp bu baax nag da cee jàpp bu baax Siteu ci boppam da cee jàpp boppam da cee jàpp bu baax maara di taal daf cee jàpp vraiment Modou loolu laa même chose parcelle digganteem ak moom lan la dañoo nekk ay mbokk wala dañoo xaritoo dañoo xaritoo xaritoo la dañoo xaritoo waaw da koo bëgg ñu bëggante dañuy déggante di wootante di waxtaan mais bëri moo leen boole woon jeex na ah léegi nag ñuy xeex di xuloo duñ ko def dañuy nekk ci jàmm nag di déggante di waxtaan di fa di ree boo xewlee sa morom ñëw bu xewlee nga dem loolu mooy àdduna mais du guerre boobu nag wax dëgg yàlla xanaa même moo kii sax demee noonu Modou Lo comme ndax moom mu ngi dégganteeg Modou Lo ci bi mu ñëwee ak léegi ci combat yi nga xamante ne si jot na ko cee am ba ah ñu ngi déggante kay ñu ngi déggante ñoom ay doomi ndey lañu ñoom làmb boolewu leen dañoo ànd avant làmb làmb boole leen mu gën a neex dañuy déggante Zarko buy bëre waa Parcelles dañuy ñëw ñoom bu ñuy bëre ji waa Grand Yoff dem ñëpp fay dem ndax ñëpp bëgg a Modou Lo Modou loolu kese la. tey conseil booy jox sa doom ak ñaax boo koy ñaaxaat lan nga koy wax. xanaa mu yokk góor góorlu rek dolli ñeex yokk cere. waaw loolu daal laa koy wax waaw <laughs> loolu daal laa koy wax dëgg yàlla ñu daal kontaan nañu daal vraiment sama xarit yëpp nag fi la ñu yendu maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu waa petit di nuyu waa grand wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ko ñaanal amul kenn koo xam ne ñaanal lu ko cat ba cat grand ñëpp daal vraiment mention spéciale maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn ndax boo limee da ngay juum mais ñëpp ci jàpp kenn nelawul. ak yàndoorul man sax ni may toog sax ba ci yàgg sax nit ñi dañuy ñëw song waaye yaa ngi toog ma ne waaw bu ma toogul damay taxaw damay toog lu yàlla def rek ñu xam ne lool la parce que ñoom ñaar ñëpp samay doom lañu te dañuy bëre ne yàlla def li gën rek du dégg loolu moo fi nekk. làmbam tamit aussi mu ngi